الحمد لله آخر لا إله إلا الله زاهر لا إله إلا الله باطن لا إله إلا الله فناء لا إله إلا الله بقاء لا إله إلا الله تجلي لا إله إلا الله أراقي لا إله إلا الله الحمد لا إله إلا الله لله لا إله إلا الله العبد لا إله إلا الله لله لا إله إلا الله xam nañu ko لا إله إلا الله xamee ko لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله محمد لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا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 برحمة لا إله إلا الله برحمة لا إله إلا الله أي برحمة لا إله إلا الله برحمة لا إله إلا الله أي برحمة لا إله إلا الله أي برحمة لا إله إلا الله أي برحمة لا إله إلا الله أي برحمة لا إله إلا الله برحمة لا إله إلا الله برحمة لا إله إلا الله أي برحمة لا إله إلا الله برهمان لا اله الا الله باي برهمان لا اله الا الله برهمان لا اله الا الله برهمان لا اله الا الله برهمان لا اله الا الله صل على سيدنا محمد الفاتح والقاتم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 ñu ngi sant yàlla bu baax di julli si yonent bi sallallahu di nuyu mboolem ñu seetaan ak fu ñu mën a nekk ci biir réew mi ak mi fii seen chaîne euh, YouTube muy Damel TV di leen nuyu bu baax di leen ziara waaye di nuyu suñu invité bi nga xam ne moo toog nii di Baye euh, Baye Aïssa Diouf euh, nekk kenn ci membre yi nga xam ne mooy fondation Mama Soudianka waaye ñu ngi nuyu suñu yaay Zeyda Umu di ko ziara bu baax di ko ñaanal yàlla tawfiq ak taysir nuyu bu baax mbollem kep ko xamne rek yañu top site YouTube bi nga xamne mom moy mooy Damel TV kon duñ def dara dañuy jox ki nga xamne moy suñu invité bi tey muy Baye isa Diouf joxuma nuyu mbollem yi nga xamne ñu ñoko sitane kon Baye isa bismillah a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahmaani rahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siraatal mustaqima siraatal ladina an'amta alayhim غير المحدوب عليهم ولا الضالين آمين والصلاة والسلام على رسول الله ñu wax ne rek ñu ngi nuyu mboolem ki fi teew ci membre fondation bi waaye rawatina ki ñu jiite muy yaa umu insa at tijaan yi suñ ko waxee rek wax nañu mboolem rek membre bu nekk ci biir di ñu suñu invité yi aussi ñi nga xamante ne ñoom ñoo fi ñëw pour waa Damel TV di leen nuyu di leen masawu coono aussi beneen yoon. incha allah jërëjëf euh, Baye Issa ci nuyoo bu fasaha boobu bu gàtt boobu nga xam ne matal na lépp Baye Issa tey dañoo ñëwoon pour am ak euh, waxtaan ak nga xam ne ñoom ñooy fondation Mama Soodianka ñu nga nekk kenn ci li nga xam ne moom mooy fondation Mama Soodianka nekk membre ci biir tey euh, première question bi nga xam ne lañ am pour laaj la ndax yaakaar naa ne mbir fekkee ne sos nañ ko am na lu war a tax ñu sos ko comme dañuy wax ne euh, tey duñu lay laaj ne la fondation Mame Astou Diankha lan moo tax ngeen créé ko. alhamdulilah la ñuy wax ndax bu ñu waxee fondation Mame Astou Diankha dañuy wax ne li tax ñu créé ko buntu xitma la buntu liggéeyal Cheikh Ibrahim la ndax ñu ngi dégg ci ay histoire ñu ne Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu doon na wax ne sey na Ali ne leen taalibe ñu liggéeyal moo te nee na tamit bi qadri ma tuxibu tanaalu am daadu waaw nit ki kem ni nga bëggee rek noonu ngay jotee sa càkkuteef loolu bokk na li tax fondation bi ñu gën ci adhéré wu gën a toog ñu andi ci di liggéeyal Cheikh Ibrahim buntu xitma la buntu yokkeeku la waaw ndax fondation bi yaatu na te ñun ñu ngi koy ci ci kiñ ci àndal muy yaa ayda mu Cheikh Ibrahim ki ñuy wax Maasu Janka ki nga xam te ne moom la duppee Maasu Janka di waajuram waaw kon doon na loo xamante ne lu yaatu la te buntu xidma la te bu ñu waxee buntu xidma moom mun ko ko defee fu ne rawatina ñu ànd ak suñu yaay ju baax ji di yaa umee sa tijaan yi di ko ñaanal yàlla wér yaram ak gudd fan bu sax dak ci barke Cheikh Ibrahim ak mbëggeelu baay bu yokk ak mbëggeelu séeréer muy Cheikh Mamour Insa Diop Ruhullahi macha allah jërëjëf euh, Seydi Aïssa ci question boobu ni nga ko tontee waaye ñu ngi profité di nuyu Seyda euh, nga xam ne mooy Seyda Ndayeda bintu Cheikh Cheikh al-Islam Alhaji Ibrahim Niass di suñu sëriñ ñu ngi koy ziyaar bu baax di ko ñaan yàlla defal ko tawfiq ak taysir ndax ku ne mama su jànq rek sa xel dana ko daj euh, ni nga ni déggee sa biir question bi mooy fondation lu tax ngeen créé ko moom mooy bunt xidma nga wax sa wax ne bàyyi wax na wax na Seydou Aliou ne ko soññul taalibee ñu liggéeyal ma ndax bis bu ñu demee ba lépp leer ne lépp ngi sama loxo képp ku ma liggéeyal toon da nga ko perte waaye nga ñu dégg léegi sa biir wax nga ne bi xadri ma tuhibbu tanaalu am daaduhu nit ke taalibe bi kem ni mu bëggee sëriñam rek noonu lay amee ay tëbbam kon ci biir nu xidma boobu dañuy profité laaj ci question bi deuxième question bi mooy gàmmu Medina Baye koo wax xam ne international la ku nekk fi teew ñu nekk fi daje xeet yu nekk fi daje ñëpp uyu si oote Mawlana Cheikh Ibrahim nga xam ne moom la tef tant bi nga xam ne tantal ko soppam bi Mawlana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yéen ban taxawaay ngeen am ci gàmm gi. Euh, alhamdulilah ci loolu dañ ci kontaan bu baax ci gàmm bi nga xamante ne mooy gàmm Madinatu Cheikh Ibrahim nga xamante ne ñëpp ay rëj rëj ngir teewee ko teewee gàmm bi ba ci gàmmuwaat bi. li ci fondation bi taxawu moo di rek euh, dañuy yëkkati seen dërëm. seen ñaar dërëm yi yu ut ko ay ndox di ko jox jaamu yàlla yi ngir ñu jëriñu di dem ci kër muqaddam yi soppe yi nga xamante ne mooy soppe yaaw mu instant yi muy setu baay yeeg yeneen muqaddamu baay yëpp kër gune rek ñu dugal fa ndox ngir ma ndax ci tàmbali la rek waaye mun na dem ba mu ëpp loolu noonu mun na dem ba sax ñuy ut ay nag di ko yeew kër sëriñ si muy doomu bàyyi ci setu baay ñaan nañu yàlla loolu ñaan nañ ko Cheikh Ibrahim mu defal ñu loolu loolu nga xamante ne chaque at mhm. dañuy def indi ay nag ñu takk ko ci buntu kër yi ngir gàmm gi waaye instant yi ni ñuy waxee ni ay ndox la ñuy def chaque gàmmu mhm. wala gàmmuwaat wala gàmmu Taïba ak lu mu doon rek ci événement ci Medina Cheikh Ibrahim rek taxawaay boobu lañ si daan am yàlla jërëjëf sëriñ bi ci deuxième soal boobu nga xam ne laaj nañ la ko moom mooy li nga xam ne euh, taxawaay bi nga xam ne am ngeen ko ci gàmm gi ñu dégg sa bit wax ne mooy euh, pour jox jaamu yàlla yi li nga xam ne moom la ñu naan ndax loolu ci nekk ci rek kenn xamul nu mu toll ni ñu ko yàlla di waxee wala yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngal ñu ko leexal kenn nit benn benn benn tib rek wala nga mu mar nga naanal ko rek loolu kenn xamul tiyaabu gi ci nekk rawatina ci li nga xam ne moom mooy euh, juddu yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye lépp ngeen def ko rek ci buntu xidma Mawlana Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu moom mi nga xam ne wax na ne koo xam euh, xidnaal nga ko rek sa càkkuteef da nga ko am ndax ñëpp jàng nañ ko inna lazina xadamu ne naalu muraadum koo xam ne ñi njëkk ñu ñëwagut ñu ñëw yëpp kenn ku nekk am ngay seen càkkuteef ci buntu lan ci buntu xidma ndax day yàgg naa wax doomi na leen liggéeyal leen ma ndax kenn mënta jëriñ ci lu dul ci buntu xidma du buntu doom waaye ci buntu xidma rek ci nga mën a jariñoo loolu yéen nag loolu ngeen teg seen tànk wax ngeen taxawaay bi ngeen am ci gàmm gi mooy dem ci kër muqaddam yi dem ci kër li nga xam ne mooy doomu Cheikh Ibrahima yi waaye taxaw si mbedd mi tamit pour jox jaamu yàlla yi nga xam ne ñu ngi ñëw am ñoo xam ne tumuranke nañ pour ñu am ndox tënd leen ndax kenn ku nekk da fi gis ngeen dimbale jaamu yàlla pour jox leen ñu ngi ñaan yàlla yiw googu yal na yàlla fay leen ko yaa rabbi ñaan yàlla li ngeen bëgg yëpp ci li nga xam ne moom mooy fondation Mamas Diankh bi yal na yàlla defal leen ko waaye comme yow en tant que membre ci biir Mamas moo la gën a marqué wala moo la tax nga adhéré ci biir fondation Mamas Diankh alhamdulilah man li tax ma adhéré wu ci fondation Ma Astou Diankha Baye Niass rek moo tax man ma adhéré si parce que sama yaay ji bi ma ko xamee ak bi ma adhéré woo ci fondation bi yàggul waaye li tax ma adhéré wu dëgg dëgg dëgg mooy la mu wax ne xidmal Cheikh Ibrahim ndax ñun ay ndaw lañu doon taalibe ci kanamam bëgg a liggéeyal sëriñ bi muy Cheikh Ibrahim radiyallahu bu ñu demee ba gis bunt buñ koy xitmalee mu tuut mu ndaw dañ fay dem adhéré wu loolu rek moo ñu dugal ci lool mais ñu ngi ci sant yàlla ci loolu noonu ndax am nañ ci loo xamante ne amuñu koon muy xameel muy yokkute ndax dañoo ne ziyaada ziyaara boo gis rek ziyaada la waaw te dañuy dem kër doom baay kër seetu baay ñu leen di ziyaara xamante bi di gën a yokk loolu rek yokkute la loolu rek yokkute la te loolu moo ñu ci gën a marqué li tax ñu gën a jàpp fondation bi waaye alhamdulilah alhamdulilah la ñuy wax. ndax fondation bi mën nañu xam kañ kañ la sosu kañ kañ ngeen ko créé ban date. 2018 parce que bi ma ci adhéré ak léegi daanaka daaw la ak ren daaw la ak ren daanaka déjà la waaw moo tax waaye daal dañ ci sant yàlla ci loolu noonu waaw xam nga nit ko xam ñu nga ci même pas deux ans. Mm. ñu jox la a métti trop sant yàlla. macha jërëjëf sëriñ bi ci euh, question yooyu nga xam ne ni ñu tonte lépp leer na fondation Maos Diankha lépp ñu ngi ko mu ngi at mi ngi ko créé li nga xam ne moom 2018 yaakaar naa ne ren am 5 ans wala 4 ans te lépp yéen a ngi gis yokkute ndax euh, liggéeyal bàyyi ma amul pertement te tànk ci kanam rek la am waaye amul tànk dellu gannaaw kon euh, message bi nga xam ne bëgg nañ nga jàllale ko muy suñu question bu mujj. mooy naka ngay ooyee ñi nga xam ne bëgg nañ adhéré wu ci li nga xam ne moom mooy euh, fondation Mass Diankha fi ñu war a jaar ak kan moo yore bunt yi ak kenn ku nekk xam nga tey ki ñu seetaan bëgg adhéré ci fondation Mass Diankha nga tegtal ko yoon bi nga xam ne foofu la mën a dem pour mën a adhéré bokk ci li nga xam ne mooy fondation Mass Diankha waaw di wax ne rek euh, këpp ku bëgg a adhéré ci fondation Mass Diankha rek euh, njiit li mooy yaa umu Insa ak Tidiane yi mu ngi dëkk Fass Mbaw mais tout le temps aussi des fois comme gàmmu gi nii dina des fii ba après gàmmuwaat sax fii lay nekk muy Medina Coof ak fii nii ci kër yaa umu sukuro mbay ñu ngi koy nuyuwaat beneen yoon di ko ñaanal yàlla di wax ne rek euh, numéro mooy 77 77 604 97 09 muy 77 604 97 09 ñu koy wax yaa umu Insa at Tijaani boobu mooy numéro ku bëgg a wu ci fondation bi rek mun nga woote ci numéro bi di nga ci am leeral bu baax a baax. macha allah jërëjëf sëriñ bi ci soo tontu yoo xam ne am na solo lool euh, kon ñu déggee ko képp koo xam ne bëgg nga adhéré rek ci yaa umu Aïssa Tijaan yi moom mooy bunt bi te lépp rek ngir xidmal Maulana Cheikh Ibrahim waaye ci li nga xam ne moom mooy fondation Mamas Dianka waaye ba léegi ñu ngi nuyuwaat suñu yaay Seyda Ndayeda bintu Cheikh Islam Alhaji Ibrahim waye di nuyu nga xamne moy magam muy al khalifa alxalifa al uluma almufassiru jalil cheikh al mahi ndax baye waxone ne ne ta aqara baada rusuli wa huwa muqaddam fa diddu bi di daxyaar al qalbi wal lubba njëkkee ko mujje ko ànd mom lañu lañ njëkkee ko ànd mom lañu mujje moy qadim al uluma cheikh al mahi ñu koy ñaanal yàlla fan bu gudd bu ànd ak wér mu yàgg fi lol waye di ñaanal yàlla ki nga xamne mo al imam cheikh tidiane seyda ali cissé yàlla may ko wér mu yàgg fi lol ñu yàgg di bànneexu ci moom ci xool gi nga xool ak gis gi nga koy gis waaye di nuyu rakam naatu ko rasmi bismil xadara mi Cheikh Mouhamadul Mahi Seyda Ali sise waaye di nuyu ki nga xam ne mooy borom gàmm gi te duñ ko waxee xel dem ci ki nga xam ne mooy wakiilu daa di muy Cheikh Mouhamadul Amin Ibrahima Niass ñu ngi leen di ñaanal yàlla mboolem njabootu Cheikh Ibrahima yàlla may leen wér fan bu gudd bu ànd ak wér seen mboolem càkkute fi ak lii seen bàyyi bàyyee ñu mën koo àggali fi nga xam ne foofu seen bàyyi bëgg waaye di nuyu suñu yaay Seyda Oumou Aïssa Tidiane di ko ñaanal yàlla di ñaanal yàlla mboolem membre yi nga xam ne ñoo nekk ci li nga xam ne moom mooy fondation Mame Astou Diankha ci góor ak jigéen di wax wa axiru daawana an alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha إلا الله ألوف الخلق مألوفون سفي الله برهام لا أنت العست من كل ما في القوس برامك ولا لا إله إلا الله لا إله إلا الله سكور القالس الأمان والأكوان برهام سكور القالس الأمان والأكوان برهام يليل الجنب لا في ذلها خليص القلب برا مكان لا إله إلا الله لا إله إلا الله قصوغ من سجاياك هي الخلق برهام إله الخلق آتاك زمام الكون برا مكان لا إله إلا الله لا إله إلا الله إمام الأولياء كل بأزل وقت برهام إمام الأولياء أوليائي كل بأس الوقت برامو بروس الحق وتقيق والعرفان برامك لا إله إلا الله لا إلا الله رميت القسط لديني لأهل القسط برام لا إله إلا الله لا إله إلا الله رميت القسط لديني لأهل القسط برأمو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 إلا الله وصلى الله ما دام ما دام ما دام وصلى الله ما دام ما دام ما دام صفاتي ذاتي باي برهام برهام وخل صفاتي ذاتي باي برهام برهام باي برهام ترني وي بدي برهام باي برهام دلي وي بدي برهام barhamo weeru gammu terootina bay barhamo weeru gammu terootina bay barhamo yo yaa indil weeru gammu barhamo bay barahama way ba dee barhamo ma astu dañ lay way ba yaa jubal ndaw ñi dañ way ba yaa indi faydu xolu dañ lay way ba yaa ne ci xol yi dañ lay way ba dee barhamu cay booram jamono dañ lay way ba dee barhamu xol yi dañ lay